السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo yi ni nuyoo ak ziyaara yi kilifa diine yi jiital ci xalif général Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ak mbollem njabootu cheikh sayyid al haj malik si radiallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi amin ñu delu ci wat ak yéen ci waxtane ben nitu yàlla nitu yàlla bo xamni le 25 mars ci la gane won jamono دي شيخ الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونبيه آمين gane àdduna ci dëkk bu tedd ba di ndar moom juddoom moo ko wayal boppam wa inna nii xat kuntu min ahli ndari wa maskani fiha la daari àndari nee na man suñ la laajee waxal ni man waa ndar laa maa ngi dëkk ri àndari rii andri mooy rii andara la bon wooy wee tax mu ni wa maskani biha la daa rii andri waaye mi ngi dëkk rii andara la bon fa la dëkk waaye rii boobu tuddoon rii andara la bon yàlla dogal na tey ñu soppi tur tuddee ko rii xalifa Ababacar si moom lañ ko tuddee léegi radiallahu taala anhu kooku nag moo juddoon Ndar ci ñaari wayjur yu tedd baayam mooy Cheikh Seydil haj malik si radiallahu taala anhu yaayam mooy soxna su tedd su sell sa soxna Roqaya Njaay mooy yaayam bi mu juddoo ci ñaari wayjur yu tedd yooyu sell yooyu bi mu waree jàng baayam bu tedd ba Cheikh Seydil haj malik jox ko mbokkam mu tedd ma maam alxaaji Mor Xujja si ci mbir kilaan moo ko jàngal alquran ba mu mokkal alquran moom cheikhul xalifa radiallahu taala anhu mag ñi nee nañu seydil xaaji malik si radiallahu taala anhu bi mu ko yóbboo ci maam Mor Kujje si daf ko yóbboo waaleeg ak taawam taawu seydil xaaji malik muy maam ahmed si maam ahmed si moom moo daanu wala moo nelaw ca Salonique ca guerre ba foofu la faatoo radiallahu taala anhuma ma ngi ne bi ko Seydil Hadji malik indee maam Mor Khoudia daf ko ni ko moor mu ni ko labayka mu ni ko ah am ndongo de buy jàng du ñàkk yenn saay sëriñam jël ab yar jëm ci moom waaye maa ngi lay ñaan Babacar mii bu yàlla dogalee nga jël ab yarit bul dóor ci bopp bi ndax dafa yanu ba diis boobu lañu ñu xamoon ni sëñ Babacar ci borom cër la te mag ñi nee nañu Cheikh Al Hadji Malick radiallahu taala anhu daana jël loxoom بو تيد با تيك ca loxo maam Ahmed si jëlaat loxoom bu tedd ba teg تي loxo ca bopp maam Babacar kenn ku nekk mu jël loxoom teg ci sa bopp waaye bu tegee ci loxo ci bopp maam Ahmed si danaan kii day ndaala loo xam ne dañ ko duy ba mu fees maam Ahmed si waaye kenn xamul fu ñu koy naani moo tax maam Ahmed ca guerre bu ma bu tedd ba mom Cheikh Seydil Hadj malik radiallahu anhu ci bopp cheikhul xalifa radiallahu taala anhu sëñ Babacar danaan kii ndaala lu ñu duy ba mu fees waaye ku ci sa wërsëg nekk danga ci naan ba mu jàngee ba mokkal alquran mu jàngi xam-xam mboolem fànn xam-xam yi doomu soxna yi di jàng yépp sëñ Babacar si radiallahu taala anhu peeg na ko bi mu ko peegee nag ndeysaan mu nekk ndar yenn saa yi mu jóge ndar ñëw tiwaawan زيارة سيدنا أبو بكر أه، زيارة سيد الحاج مالك بايم رضي الله تعالى عنه من سيدنا أبو بكر لأن فلا نك الشيخ الحاج مالك دير بياك بشيخ الحاج مالك خيرك وولكم من يو نكو أبو بكر منكو لبيك منكو دما بقول نك ليجي إنك سرما منكو ما دم فن كن ما عندي دار منكو دار دفع سرة نخيان سايد ملاي لا يسخله بقى جنيو منكو دم كن لوجا mu ni ko Louga mag a fa nekk mooy maam maalik sàll bu fa dem mu ni ko ma dem dakaar mu ni ko dakaar dafa lëndëm sama liggéey noppeegu ma fa noppeegu fa mu ni ko ma dem Tëngéej mu ni ko waaw kay Tëngéej baax na suñ Babacar si ñëw Tëngéej moo tax Tëngéej suñ Babacar xalawaatam yi gën a rëy yëpp Tëngéej la ko defee Tëngéej dugg na fa xalwa boo xam ni mën na junni fan ak nàngam yoo xam ne foofu la ko duggee ci Tëngéej ci xalwa foofu la ko cheikhu tijaani radiallahu taala anhu feeñoo yaqzatan laa manaaman ci biir xalwa gi ni ko babacar mu ni labayka mu ni labayka cheikh tijaani radiallahu taala anhu cheikhu tijaani ni ko mal mun ya mal mun ya mooy ana lan nga bëgg lan mooy sa mébét ba nga dugg xalwa yu métti yi sëñ ni sëriñ cheikh radiallahu taala anhu al mun fi ay sey in ci dara mu ne ko fi tariqatina lan nga bëgg ci tariqa bi suñ Babacar ni ko almawtu fiha kana dundu di nek tijaan de di nek tijaan dek di nek tijaan loo rek laa bëgg di koy ni inni arjo mawtan karaman bi tariqatina neemal amalu man babakar de maa ngi yaakaar te yaakaaruma kenn ku dul yàlla booleeg di ko ñaan moom yàlla yàlla ma may ma waaye ma dee nekk Tijaan waaye ma dekki nekk Tijaan foofu la ko Seydi Cheikh Ahmed Tijaan feeñoo fa la liggéeyee xasidaam googu muy talaat lana fa la ko liggéeye ci biir xalwa gi ba ka Cheikhu Tijaan feeñoo mooy wax ci biir xasida ga xat jaana fulku najaati waxat nafa anna rada mu ne xat ci dëgg-dëgg jaana dikkal nañu fulku najaati gaalu texe gi te mooy Cheikh Tijaan رضي الله تعالى عنه من وقد نفى يالا دقنا عنا تنين أرادا الكندي كو أم شيخ تجاني يودي الكندي دفلي سوري كو كمو سين بابكر سين بابكر موم رضي الله تعالى عنه بيوي جرم متردو سلوة جنة أدونا دي شيخ سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه موكو دونو دونو برفت نخشيخ الحاج مالك 1922 لجنة أدونا bobu seigne Babacar si at yi baregul ndax jéggiwul fanweri at ak jurom naar magni ñi ki bayam baayam ni mu tolloon ci xam-xam bayam ni mu tolloon ci wilaya bayam ñi ko toppoon kii at yi dafa néew du meuna wutu bayam bi mu déggee magni wax lol nak mu dajale mag ñep ni len Cheikh El Hadj Malick ñaari 16 la fi bàyyi 16 bu ñëk bi moy 16 bi kay wutu moy 16 serigne bi man tok na ci benen 16 bi moy 16 talibé yen xamna ni tok ngeen ci 16 bobu wax len da ngeen xamul waye man alaaj malik doon na ko juróom ñaari at te bobu cheikh alhaaji malik radiyallahu taala anhu mi ngi dundu keroog la wax waxam juré ji ni xana xamulen man buma kañ kaañ juróon kaañ mi nekkoon fi ci àllu kañ buma ma juróon tamit du te man nek khalifa cheikh sayidi ahmed tijani sharif radiyallahu taala anhu alaaji malik moy sama baye alaaji malik moy sama serigne alaaji Malick kenn la kenn mënul dab waaye maa ngi leen di xamal ni fañ ko tubbee fañ ko tubbalee fañ ko séddee foofu lañ ma séddee man tamit cheikh man tamit sëñ Babacar si radiallahu taala anhu kooku mooy cheikhul xalifa mu yan mu jël nag yan bi tubaarakallaahu wuutu baayam wuutu bu rafet tubaarakallaahu moom la ko rakkam ju baax ju tedd ju sell ya waxoon yaa waarisal qutbi ak maamam te wuutu sa baay يودي شيخ المشايخ في الإسلام دون فقر مام عبد موخون سن بابا كنك يا وارث القطبي يوم يقمني يا دون قطب بي موي كان شيخ تيجاني شريف رضي الله تعالى عنه أك مامم كان موي مامو شيخ تيجان mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te wuutu sa baay kan mooy baayam Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu mu ne ko yow daal Cheikh il Machaïqi yow yaay Serigne Serigne Sy yow sëñ Babacar fil islaam ci islam bi yaay seen sëriñ doona faqar te tiitare woolo tiitare ko yow sëñ Babacar sëñ Babacar si moom radiallahu taala anhu ndénkaanam daawul passé juróom juróom la daan dénkaane dafa daan wax seen diine na ngeen ko fonk seen tariqa na ngeen ko fonk seen métier na ngeen ko fonk seen daayira na ngeen ko fonk seen yoonu tiwaawan na ngeen ko fonk mu tàllal loxoom yu tedd yi juróom yii ku ci sax ba ëllëg ku gis malik nga gis malik ku gisul malik nga gis malik te malik bi mi wax moy Cheikh Seydi El Hadji malik Sy radiallahu taala anhu te mu ñu ëlëk ku gis malik di Cheikh Seydi El Hadji malik Sy radiallahu taala anhu mom day dana la wanaleeg Malikal Muluki di buri buri di jàll jalaluhu wa azza kamaluhu Sëñ babakar nit la won ko xam ku fonkon kolere la ba ci mbaxane dafa kolere won te ak mbaxane mu tuddu bone carré du sol ben mbaxane bu dul bonnet carré moom rek la daan sol suñ Babacar ku amoon kóllëre la ba gura soo ko masaan jox gura du ko xar su ko yee da koy raxas ba mu sot rek mu boole ñaari ŋàdd yu noonu di ko lekk di ko lekk ba mu jeex waaye du ko xar suñ Babacar ku amoon kóllëre la ba ci boisson xeeti naan yi la gazelle rek la doon naan lu dul la gazelle boo ko joxee danaan du ko daan parce que moom dafa kóllëre rek la ba noppi suñ Babacar si radiyallahu taala anhu ku amoon kóllëre la ba tey soo àndoon ak sa nit Pape Makhtar Sylla bu doon dem ziyaare ji sëñ Babacar ànd ak Bachirou Bane mu àgg Pape Makhtar présenté sëñ Babacar Bachirou Bane su ëllëgee su Bachirou ñëwee moom kese di ziyaar sëñ Babacar te àndul ak Pape Makhtar day laaj Bachirou ne ko ana Pape Makhtar fi indi woon loolu pour rek fonk kóllëre ak wane nit ki ak kóllëreem dañu war a ànd sëñ Babacar daan wax ne gor du jàpp bàyyi soo jàppee sa moroom bu ko bàyyi na nga ko téye ne la bu la dara teqaleeg sa nit daana ko wax gor du jàpp bàyyi sëñ Babacar daan wax ni gor du tiit ba fen nee na loo tiit tiit ak lu mu ñàng-ñàng ak lu mu metti metti waxal dëgg sëñ Babacar nee na gor du ñàkk ba sàcc nee loo ñàkk-ñàkk na nga toog ci sa ngor bul sàcc waaye sëñ Babacar daan wax ne gor du soppeeku nee ni nga mel tey bu ëllëgee nañ la gis nga melaat noonu kooku mooy cheikhul xalifa radiallahu taala anhu mu ñaan yàlla rek yàlla doole leeram te taas ñu ci barkeem ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku nag moo doon bàyyam mille huit cent mille vingt deux la doon bàyyam jóge fi cinquante sept ba léegi tey dafa mel ni bërki démb dong la fi sëñ Babacar judd la fi sëñ Babacar génn àdduna xale yu mujj xale yu mujj juddu sax kenn ku nekk am na cofeelam loolu nag li ko waral mooy dafi toogaloon yàlla توغل في يونتبي توغل في شيخ تيجان شريف رضي الله تعالى عنه كون يال نيالا تاسي باركيم تاسي مبولو مجرد سن بوكو دارو با مختار سيلم مو ديلو سواتو نجي اندك دي فاتلين تيك مبوكي تاليبي رواتنا اك مبوكي جرد يب تي دموك سن بابو كرسي رضي الله تعالى عنه يال نيالا تاسي شي باركيم شي بارك يونتبي صلى الله عليه وسلم اك بارك الشهر رمضان المبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته